ملأت ببل الله ما كان يستاهل aouzu billahi min aseytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wa sallallahu taala ala saydina wa maolana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman barki borom tuba asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu mbokki jullit mbokki taalibe mbokki lislaam bi ñoo ngi nuyu ñépp di leen ziyaare di leen xamal ni ñoo ngi fii ci dëkk bu ñuy wax Touba Cincinnati Pape Gora sàmb porte parole daayira Kër Cheikhul Khadim sar ses relations mooy ànd ak mboole mbokk taalibe yi ci jiital sëriñ Mamoun mi nga xamante ni mooy kilifa daayira kër sëriñ Touba gi ak ki nga xamante ni mooy sëriñ Youssou Bousso ak Cheikh Mamadou Al Basir moom sëriñ Abdourahmane moom maam Thierno Ibra Fati ak mboolem taalibe yi di waaj di teeru sëriñ Mam Mor ibnu Cheikh Mamadou Mourtala yaa na ko yàlla fayal. ci liggéey bu rëy bi nga xam ne liggéey na ko ci lislaam tey jii nag di bis boo xam ne jagleel nañ ko sëriñ Touba Khadim Rasoul fii ci Touba Cincinnati nu koy waajal di teeru sëñ bi fii ci kër sëriñ Touba gi fas yéene bu ñëwee ñu dalal ko tadaganteeg moom ziar buñ ci jugee ngoon jigéen ñi ak góor ñi ziare ñu def ay mawlut wàcc kaamil ñaanal sëriñ Moutala góor yàlla ndax ku ne xam ngeen ni bis ni ki tey di di di le 7 août 2004. ci la wuy ji sunu borom ci liggéeyam bu tedd boobu mu doon liggéeyal Serigne tubaa ba sëñ Maam Mor yenu yen ba ci fii la ko yëge woon xew-xew boobu kon tey jii ñu booleeg yooyu yëpp ak wàcce kaamil yi di ñaan mu yàgg fee ñëw te nu yàgg koo teeru ci loolu daal la nekk di ko liggéey bu ñu xëyee suba dana def marché bi downtown di marché bu woo xam ne ci digg downtown bi lañ koy defee bu ñu fa jógee ñëw wàcce wàtti kaamil def kuréer incha allah dem ca saal ba def programme bi ba 10 heures ñu fas yéene koo tëj. kon daal loolu mooy am fii ci Touba Cincinnati ndax nag Serigne Mamor nga xamante ni képp ku nekk ci dëkk bi ci diaspora bi mooy sa bunt ci Serigne Touba ci wàllu jaspora bi ndax liggéey bu rëy bi muy liggéey waaye nag ngor gi ak jom ji ak fulla ji ndax boo gisee doomi sëñ ma roqee buso nga gis doomi maam Cerno Ibra Faati doomi sëñ Mbàkke Pitin nga gis mboolem ñu bokkal sëriñ Touba topp ci ginnaawam dëgg la juddoom may na ko ko waaye nag yoon wi mu nekk ak liggéey bi muy liggéey dayloo sëriñ Touba ba sëñ Sidil Muxtaar dégg ngeen mu ni bu ñëpp meloon ni moom danañ ko noppal te loolu ñu ñii taalibe yi ne ci dëkk bi ñoo ko mën a seede ndax fépp foo gis sëñ Murtala wala nga gis ko moom jëmmam ji nga xam ne jëmmi sëñ Murtala lay doxe di sëriñ maam Mor da nga xam ni kat liggéey ba mu doon liggéeyal Serigne Touba teg na ko ci fulla teg na ko ci ngor teg na ko ci diine lenn lu ko nit di gis di yebe Serigne Touba doog gis moo waral ñu ñëpp ñu takkoo nekk benn àndandoog moom. di ko jàppale ci liggéey bi teg ci sunu jom sunu fulla sunu ngor sunu diine ak sunu bakkan lii daal leen fas yéene di ko liggéey ci liggéey bi sëriñ Touba bi nga xamante ni sëriñ Mamour mooy jëriñ ji ñoo ngi nii di ko teeru di ko xar ak mbokkam yu baax yi kon daal euh, loolu lan leen di wax daal moom la nekk fii ci Touba Cincinnati aziru mahal abrarihi naziru wazannal idani hunaka aziru أسير مع الأبراره نازير وزن العداء هناك أسير أسير مع الأبراره نازير وزن العداء هناك أسير مسيري مع الأخيار لله بالنبي وما لي لخير الله عود مسير يسير بي الجسب الذي خادني إلى كريم عليه معروم يسير شكري بأقلامي وقلبي وجثتي لمن كان لي بالجود وهو شكور نصوري وتايدي ويزي لدى العدا من الواسع الوهاب فهو نسير أميري لدى سيري ومفي وسيلتي خديما له وهو الخديم يميره وجوري على الوهاب جل تكرما على خدمة المختار وهو أجيره نزوري كوني عبد العرش وحده خديما لخير الخلق وهو نذير يجيرني الكافي به من أذى العداء ومن كل سوء وهو جل مجير مسيري كوني عبده خادم النبي وأمر البرايا للإله يسير شو بنظم ونصر وهو نعم ستور بزوري كتاب الله وسنتي التي بها أحتمي هما نخاو بزور قصوري خلت والأهل عني تفرقت لمدح الذي عنه المدي خسير خسير أني تفرخت لمدي الذي عنه المدي خسير خرار الورى خر النثارى بكيده وزن زنونا وزنون خرور